Zos fi réew mi toll. Mhm. ak kaa yi nga fi dégg ak problème yi fi dégg wax ko ko léegi. Mhm. nan la ñuy def ba valeur yooyu dellusiwaat. waaw surtout secteur politique bi. waaw parce que xam nga tey boo xoolee le tout le non politicien sax gars yi bëggatuñ ko dégg. parce que koo ne politicien ñeneen fenkat la. ah mais loolu la ñu di wax ñii naan politicien wala ñu politicien politicien la ñuy wax maanaam xaj quoi mm. nest pas. ñii ne il faut nga mën a fen pour ngay politique donc ñun dañuy xaw a jaxasoo ñun ñëpp dañ xaw a jaxasoo. ci comprends parce que façon version bu ne ngay dégg ko nañ xëj teg la vaar la ku wax rek vaar nañ la. yaa waxoon lii waxaatoo ko waxoon li waxata mais ñun lu ñu soxla mooy jëlaat suñu valeur. dafa am lu ñu mérité mooy yàlla daf ñuy jox les les les richesses. li nga xamante ne mooy les ressources naturelles am nañ ko. bi ñu laajee naar ba Dubaï. nigérien bi di ko laaj mu ne ko Afrique amul problème richesse. problème dirigeant la am. kon ñun lu ñu soxla. mooy mooy ay dirigeant yi. kilifa yu mën a yu am kilifteef. vraiment dimbali ñu. Mhm. parce que ñun toll nañ foo xamante ne. Mhm. yàlla may nañu suuf suuf boo xamante ne. ku ne war na yor carte bancaire. lu mu gàtt gàtt cent mille francs nga dem rocc ko du ko sa poche. Ah? non xam naa li ma la wax. quinzième pays le plus riche au monde en si dernier pays les plus pauvres au monde en développement. loolu benn affaire la gis nga bari bi ñuy def ni sport la. dañ ciy meg mani. teewuñoo nekk dof. on des intellectuels. I speak English and French. waaw que dama éveillé wu lii sport la. sport sport la rek. bu jeexee dafa benn niveau bu nekk ci boo xamante ne duñu duñ ñëwee nii dañuy laal suñu costume baax ñëw taxaw expliquer mais fii situation réew mi toll. tey aussi dañu war a wax li ñu war a wax ñu wax ko. mooy yu mel nii tey yi nga xamante ne utal nañ ko tur ta nga xamante ne vraiment mu ngi mu ngi jëmal ñin ci yoonu safara ñu waxtaan ci. loolu la ñuy ñaan Sane Aline Sall Iran Ndaw sunu papa xali Abba ah, ah, Khalifa Niass ak ñeneen ak ñeneen ak oustaz ñoom Modou Fall ñëpp daal euh, ku ma lim dama juum mais vraiment liñ leen di ñaan mooy ñi sensibiliser ñin ñi te moytu yàq gis nga tey il faut ñu may président yi même tey bu fi Sonko ñëwoon exemple. nañ ko may temps mu liggéey il faut ñuy may ñi ni temps mais chaque jour cinq ans laa la may nga dégg dëmm la yaa ngi dégg am ñoo xamante ne du ñu mës a ànd ak état opposition rek la ñu àndal fu ñu nekk yàq bi rek tey lépp lu ñu mën a def lu ma ñaan yàlla mooy BRT bii yi nga xamante ñun ñoo ko moom bu ñu ko yàqee su ñun lay méttiwaat nañ ko protéger ba pare. man loolu mooy amal njëriñ sama sama njëriñ ñàkkul Macky Sall moo fiy toog wala Sonko moo fiy toog wala diw moo fi teg man loolu intéressé ma fa ma intéressé mooy ñu protéger lu ñu moom ba pare. ay ngi teg li ñuy yàq tey on a perdu plus de 5000 employés ci Auchan yi ñuy toj ak Total yi te sénégalais yi ñoo moom d'accord société bi société française la mais benn deef mooy jël ay millions investis ko. jël ay Sénégal yoo fi ñu toj ko taal ko mu jeex mais ñun loolu ba kañ. tey bu Sonko sax sensibiliser wu ñu ni moom bu fi toogee dina fi defal rafet ñu toj ko. man lu may intéressé beneen débat la bokkul ak débat bi ñuy xëccoo réew. man xëccoo ma réew. est-ce que dégg li may xëccoo ah mooy protéger li ñu moom. est-ce que dégg ñi xam ñi con ñi ñi ci li ñuy def il faut être conscient. ñaxtu ñaxtu la mais yàq moo baaxul man ma yàq. franchement bëgguma yàq ak ay moor. yàq baaxul. yàq baaxul. mooy. non li ñu mën a def mooy. mais responsabilité ñaari camp la nekk on se dit la vérité ñun ñëpp ay la sénégalais lañ nañu waxante dëgg responsabilité ñaari camp yëpp il faut ñoom ñu mën a toog yërëm ñit ñi mm-hmm. nañu yërëm population bi. yaa ngi dégg ku ne utilise sa benn façon force il faut ñu yërëm population bi ñi ciy dee ñoo perte ñi ci dee ñoo pert te kenn du jël responsabilité ne kii moo ko rey kii na yow yaa riposte ko léegi ki dee yaa perte ki dee du musul jëriñu mais man ñaata temps laa fi topp ci ay gars jàppale leen fii yaa ngi dégg ko ko njëkk a taxaw nekk opposition en 2019 ah ne leen nañ def nii mais li ma gëm mooy à par opposition yàq bokku ci liggéey bi. boo yàqee yàq nga sa réew. mi ngi mel nga tabax sa kër ba mu rafet. Mhm. toj tale bi. dëgg la yaa ngi dégg li ma bëggoon wax mooy. waaw ci ñaari camp yi nga wax. muy pouvoir moo fi nekk ak opposition. léegi ñoom ñi nga xamante ni ñooy opposition bi bu ndikkee bu xeex amee quatorze des fois wala vingt des fois jiñ ko gouvernement bi gouvernement bi retourné di ko jiñ opposant bi mais ñoom lan mooy seen problème ci ñu bañ a am intelligent bu toll ni euh, régler action boobu ba problème yooyu du am ndax. ci ñaari camp yëpp lay laal te ñaari camp yi bu laalee mooy laal na Sénégal. dañoo bëgg nguur bëgg àdduna dégg lu ma la dañoo bëgg àdduna xamu ne àdduna day jeex ku sëñ Modou Niang xam ne àdduna day jeex ku gis ñu sunu sunu maam Jili Mbay sunu maam Serigne Touba sëñ maanaam Ndiaye Seydi Hadji Maat nit yu baax yam Baay Ñas dunduñu sax lu yàgg sëñ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dundu lu yàgg yaa ngi dégg moo tax fii dara jar frais sa bopp. gis nga dañuy fo dañuy fontu rek xamuñu yàlla. Hmm. gis nga mboolu ga bàmmeel yi lu jar a am solo. lu lu moytu lu mot a sóoraale ak a jar a bàyyi xel. ak a bàyyi xel ils sont tous responsables. Hmm. parce que ñoom ñëpp at na ma ñor. déglu ma fi yaa ngi wax lu si at na ma lu ñor. ñoom politicien déglu ma la xanaa ñu ne da ngay fen pour nga mën a nekk politicien. c'est grave ah? léegi ñoom ñëpp ñoo pa jël ay pas de responsabilité. yaa ngi dégg après di jiiñante yàlla mooy atte man du ma yàlla du ma yent yàlla dina atte loolu noonu les morts là nga xam ne c'est des soutiens de seen ndig yi yàlla bindoon ci ay doomu adama ñu war a nekk ñu njaboot ñi war a nekk ay imam ñi ray leen nga fan day niil noonu noo munul nekk. non mënut a ne. delloo leen seen xel yi gars yi delloo leen seen xel yi te gëm ne fii yàllaa fi ne àdduna yàggul waaw ku war a fal na falu voilà man nag. sama opinion rek laay wax. yaa ngi dégg li may wax ragalu ko aw ma sax intérêt fu ma neex laay dem seen intérêt personnel rek ngeen jiital di sacrifier peuple bi c'est